xase teg daal di indil rëg-rëg waaw di xaar ah waaw balaa ma lay bàyyi nga tàggatoo ma laaj la ci benn combat boo xam ne bëri na coow loolu ñaari mbër yi voyage woon nañ ñëw mm. muy Balla Gaye ak Tapha mm. seen état de forme parce que man ñaar ñi ma gis dafa mel nii bi ñu fi mujjee ak bi ñu dellusiwaatee dañoo damaa gis ne dafa mel dañoo wàññeeku ñoom ñaar ñëpp ci sama gis-gis rawatina Balla Gaye bon man état de forme Tapha Tine laa gën a gis mm. yaa nga dégg mm-hmm. Balla Gaye bu solee mbubb hmm. man du ko mën a du ko mën a atte ko mën a atte mais man xam naa ne Balla moo xam ne mu dafa ngemb hmm. biiram teguwul ci kaw ci kaw li hmm. kon am na état biir bi new ci kaw ngemb li ni biir bi doon génne am vivacité bi mu doon am toujours mooy nit nga xam ni moom su nekkee en état lu ko xelam jox da koy def waaw loolu moom. Mhm. parce que ba muy bëri jeeg tafaatin. Mhm. Demba Diop amoon na sax poids. Mhm. mais moom bu mu xoolee ni tafaatin mii offensiful jéemul dara. dafa ñëw briefing combat bu mu jeex parce que am na condition bu mu ko defee. ah ci biir combat bi la xamee ne tafaa mi du def. waaw ñaata yoon lañ déplacé yegg ba ci saako yi mu. ñëwaat ku mu génn. muy jël loxoom di ko def nii ñii. ah booba lim ci jublu woon mooy. mooy parce que comme dafoo dara rek. mu ne ko xaaral kon ma ñëw sësit sama sens. mais bien sûr tafa tafaatin nag bokkatul ak tafaatin bi nga xam ni moom moo fi newoon. Hmm. waaw ci lépp nag. ci lépp lépp. ci lépp nañu xool photo yi nga xam ni moom moo doon tafaatin hmm. bu njëkk. Hmm. ak photo yi tafaatin tey. loo gis ne moo loo mën a tënkal nit ñi ci ne moo soppeeku ci tafaatin ba nga ne bii bi woon ak bii tey. non tafaatin dañ ko préparer du pour sax pour làmb ji. pare dañoo préparé tafaatin leneen. du pour làmb. déedéet. lu tax nga wax loolu père. dina ñëw di bëri si làmb. waaw fu muy ute ji xaalis. waaw moo ëpp fii. moom tafaatin. waaw te lii ma la nii su ma amee fan wu gudd. incha allah yàlla na ko am dinañ waaw dinañ ci dinañ ko. dinañ ci teg suñu bët waaw. il est préparé pour mu nekk un champion du monde. ci boxe wala MMA wala. MMA. MMA bu bu doxee dëgg dëgg dëgg yéen xam nga ne du kenn du ko tëkkaleeg sunu làmb ji. ah rëgg-rëgg de mu ngi ca bëgg a mu ngi ca mu ngi ca mu ngay dem moom. waaw moom am na combat yoo xam su ko xasee gagné actuellement nii day dem ay huit cent millions un milliard. un milliard waaw. Badou Tafatine da nga gis ne kon foofu loolu lay préparé sax moom. yow xoolal xoolal façon entraînement yi ñu koy entraîné lu. waaw man de gis nga bu daanee làmbam ji. waaw yaa ngi dégg waaw. su ñëwee fii rek day ñëw pour xool bu amee combat bëri ko bu amul dem fële dem jël ramasser li muy ramasser. mais ñoom ñaar seen waaw seen i sens ci combat euh, ak âge bi mu amoon mhm. moo am cursus mhm. ci ci ci MMA mhm. sàkkantuma ak tawaatin xam ne moo wane yoon wi ñoom ñaar seen i euh, sens ci combat bi Tapha euh, kii ku ci ne boo amul loo koy météo ci sa morom lu muy doon noonoo non Balla Gaye moom damaa xamagul état bi dëgg dëgg dëgg dëgg parce que su solee mbubb man du ma ko gis ni ma ko war a mais moom nee naa la bu moomee boppam maanaam bu dee biir bi melul comme ni mu meloon bu njëkk. Hmm. xamal lu mu bëgg a def moom mun na koo def te du xaar kenn soo gisee nag mu doon xaaraate. Hmm. parce que dafa am ay feem yu ne ci moom. Hmm. mais du am condition bu ko mën a def bu ko mën a exécuter. waaw léegi nag il fallait muy toog di arranger di kii. mais su yoree lii ma yaakaar moom. Mhm. ak incept bi mu jógee nga xam ne ñoom du ñu jël ku ñu mënut a defar suñu xoolee ba mënuñu laa defar dañ lay bàyyi nga dem. Mhm. mais suñu demee ba accepté la rek na peut-être mën nañ la defar ci diire bi nga xam ne soxla nañ ko. Mhm. ci combat bu war a mën a dem mois de juillet. moo tax nag. pour man mu mën a wax dëgg dëgg dëgg dëgg ci Balla gay day fekk ma gis bindam. bi mu yor normal.